والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أو قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وفي معنى الدنيا ngi leen ngir fekkewaate jataay bi di ñaan yàlla mu nangul nu ko te mboolem ni ñu def lépp di ci sàkku ngërëm mu defal nu ko ngën ji ak nangu te sellalal nu ko ba mu yàlloo bu te ak jëmam ja bu ko defee itam jataay bi mbéy nu jàpp na affaire na affaire demi di ko tàmbali bu ko defee fo fo dix demi jote rek ñu jeexal ko ñu soobee yàlla moo tax bu ñu jullee bu doon ku neex mën dem seen tëgg nekk ko waaye li baax nag mooy ngeen di jàng jàng xasida comme ni ñu def ni bu ko dee itam li may jëkkee rek mooy tàmbalee ci xam le ni jamono ji ne ni jamono ji doy waar la jëf yu bare bare bare bari yàlla du ci am soxla ndax yéene yéene yi moo moo moo moo moo du sell ba tax na maa ngi dénk sama bopp di ko dénk ñépp nga xam ne mbir yi yëpp ci lenn la aju ma yéene li ngay def lu mu bari bari bu fekkee yéene ji sellut yàlla du ko nangu ba tax na nit ki li mu war a gën a yittewoo mooy yéene li muy def mu mu teewlu yéene joo xam ne day def ba li muy def yàlla rek tax leneen bañ ko dugg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne innamal a'maalu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa nit ki lim yéene rek moom lay am lu sa jëf rëy fekkee ba nga koy def yàlla taxut jëf ji yàlla ko nangu te la amal njariñ lu mu tuut tuuti itam su fekkee yéene ji daa rëy te sell te yàlla rek tax lu yàlla nangu lay doon te mën nga caa defal loo xam ne sax ña doon jëf amuñu ko Seydina Usmaan ibnu Affaan xam ngeen li mu doon Badar waaye suñ borom suñ tuwaa gis nga bi muy lim waa Badar da ko caa boole ci gis bu ak feneen ak feneen da ko boole ci ña demoon Badar wax ahlu Badar te mu demutoon Badar li tax demutoon Badar mooy soxnaam moo wéradi woon di doom yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi wax ko ne ko nga des fa di ko toppatoo ca la ca la faatoo sax soxna am waaye xolam ak yéene moo doon dem Badar am na ca xew moo tax sëñ bi gis nga ca alqalbu yaakaar naa wala ca miimi ya wala noonu ya ba di wax ne il qalbu osmaana kël xusaati maana maanaam maanaam xolam moo ànd ak ñu doon xare moo tax ñu boole ko ak ñoom ab ab yoon li ma bëgg rek mooy yéene daal moo am solo nit ki nga xam ne mooy def li looy defaral fexeel ba nga yéene ca yàlla tax su dee ak jaamu yàlla lu mel ne julli yi yëpp na nga ko def ngir yàlla su dee leneen looy defal nit loo seq ak nit na def na yàlla tax mooy nga yéene sa xol ne lii maa ngi koy def ngir yàlla lépp looy def nga fexe ba sa yéene ji nga teew teewlu ko te yàlla tax loolu boo koy def loolee da nga ci amuk pay te yàlla dana ko nangu te donte loo mënul sax la boo gisee nit kuy def lu baax nga yéene na kii de lim am su ko amoon dinaa def li muy def yéene ko saxol boo ko dee yàlla dina la jox tuyaabay tuyaabay jëf jooje moo tax yonente bi daa wax ne niyatul mumini ablahu min amalihi aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam xadis bi am nay wax waaye mais na ko cee jàpp te mooy jullit bi yéeneem moo gën a jot sax jëfam kon yéene lu am solo la loolu laa ne woon nañ ko tàmbalee kenn ku ne bàyyi ko xel mooy looy def daal fexeel ba yàlla tax lépp loo def te yàlla taxut di ko ñàkk te du la amal njariñ ca yàlla yàlla soxlawut inna allaha la yanduru ila suwarikum mooy sa jëmm ak kër kër ji nii yàlla xoolu ko yàlla lan lay xool walakin yanduru ila ila qulubikum ci seen xol lay xool te li nga def lépp yàlla xam na ko kon kenn ku ne war naa sonne fexe ba li ngay def yàlla tax te looy def nga jiital ci yéene te yéene ji di yàlla nga jublu ko fa ma yaamal mitqaala darratin xayran yara fa ma yaamal mitqaala darratin charran yara lu waay def ci lu baax di nga ko gis lu waay def ci safaane di nga ko gis itam lam wax ca dex bi ca mujj ga fa man yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalixan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada maanaam jaamu ngi fexal ba bu ci dara dugg lu may ne yàlla rek tax loolu képp koo xam ne bëgg ngaa ëllëg boo dajee ak sa borom am la ngay sakku te yalla nangul la nga doon jëf fexal ba li ngay jëf ci lu baax ci ay jaamu yalla na yalla rek tax loolu dama ko doon jital rek ak laybiri ko xam ne ma koy laybiri sama bopp ak mboolem mbokk talib yëpp ndax jamono ji jëf yi jëf da jafe jëf yi bare bare ay secret ci tapi te sikk yoy moy yak jëf yalla yalla musal ci loolu